asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet lu tv point com ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar tey lundi wala boog vendredi 16 octobre 2020 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay yi comme ni ngeen koy amee chaque jour ma koy seq ak Boucar Ndour Kor Mama di ci ànd nag ak waa Vice FM ba ci Gambie Mbirkilaan FM ca Saalum di jëmoo ak Babacar Sarr ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu seen auditeur di nuyu tamit Abdou Darame doomu ndey Babacar Sarr ñu ngi koy nuyu waaye nag di nuyu waa Gambie yëpp Boucar Ndour waa Vice FM nuyu suñu père Edi Dione ak suñu père Ndongo Cissé ñu ñëw ci jour Boucar maa ngi lay nuyu di la ziar balaa maa ñëw ci journal bi. maa ngi lay fay la nuyu di la ziar di nuyu mbokku Sénégal yépp rawatina mbokku internet Lutte dafa mel ni nag tey moom. da nga waaw noonu la ci waar bi rek yaa ma am dina ba incha allah. Eh, dama sonn dama dama c'est que nag damaa kii woon moo tax damaa góobi woon waaw góobi góobi naa kii naa deqi naa. yow kay mos góoboo deqi wala min xamoo sax nu instant yii nii est-ce nga téye machine jamono jii ah, góob a gën a jafe deqi. Hmm? téye machine. Hmm. góob a gën a jafe. góob non deqi moo gën a métti góob Lamine. Ah, métti hmm. mais en tout cas daal moom du ci laa jógee moom ak lu mën a xew. ñu ñëw ci journal sunu làmb ak journalu record dañ koy commencé ci journal sunu làmb bi Eumeu Sène ñu wan nag mu mel ne kuy gàññi wala boog mu mel ne ku jaaxle li nag combat am ak Balla Gaye numéro ba la revanche la Gaston bëgg ci digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers numéro dafa mel ni am na accord nag ak ki nga xamante ne moom mooy Gaston waaye nag journal li mu jàpp mooy Eumeu Sène dafa sacrifié Eumeu Sène sa sacrifié pour 40 millions francs CFA. combat am ak Lac de Guiers numéro 2 bi nga xamante Gaston moom la bëgg. combat am ak Lac de bi nga xamante ne moom la Gaston Mbengue bëgg parce que kese moom Lamine ça dépensé adversaire bi ngay bëreel rek tey moom mbër di nga bëreeg mbër ñu fay la 150 millions ngay bëreeg beneen adversaire mm-hmm. waaye na la leen tey Eumeu Sène bii tey Lamine bu doon bëreeg Balla Gaye de tey day métti rek waaye kese moom 100 millions yi du toj waaye nag comme ne combat bi dayo combat bi moo toll noonu Lamine. dayo combat bi moo toll noonu yaakaar naa ne li ñu xamal daal daal instant bi ci liñ siwal mooy 40 millions lañ fay Eumeu Sène pour mu bëri ak ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers numéro 2 boo xool nag dernière casier Eumeu Sène mu mu bëri woon ko ak ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo 150 millions. la bëre ak Modou Lo loolu la njëg sax 160 kon booy xool daal comme ni ko journal bindee wàññi na 110 millions ci kaseem oh, loolu doy na waar di Boucar. loolu Lamine doy na waar c'est excessif waaye nag li baleer ni ma ko waxee rek tey ça dépend adversaire rek tey Modou ay Balla moom Eumeu Sène buy bëre ñoom tey dañ ko fay kase bu jaar yoon kase bu jaadu tey buy bëre ak Lac ñu ko fay kase yooyu noonu tey yaakaar na ne loolu am na mer am comportement boo yor si say combat si say tuus si say si say si yeneen ak yeneen loolu mooy jaay mbër moo tax tey promoteur bu lay waxaale Lamine boo ko nee cent millions sax du si du si waxaale kon loolu yaakaar naa a bàyyi xel surtout a mhm. a bàyyi a baax buñ bu ko nangoowee yaakaar naa ni kon combat boobu moom ku ko tëgg moom mënoo cee perte boo am boo boo amee sens wala boog loo ñàkk sens ñàkk sens dañ ci gase dañ ci gagné ay millions yu baree baree baree bare ndax ku journée boobu yaakaar naa ne du àgg ci cent millions franc CFA waaye daal ak lu mën a xew daal loolu la journal sunu làmb xëy ne moom mooy Abou Ndour yaakaar naa moom moo ko bind wala boog démbali la Iba Kane laa bëgg a wax Iba Kane moo bind loolu ci bi nga xamante ne moom mooy journal sunu làmb dañuy def ci journal sunu làmb rek ak beneen euh, article boo xamante ne Iba Kane def na ko ci Gris Bordeaux premier roi des de Fass Gris le rêve brisé de Gris waaw mu mel ni rek échec la rek tey tey Gris moom war na mën a nekk roi des arènes waaye ni ko journal bi xam ne rek dafa mel ni daal amul chance la mel ñàkk chance la def moom Gris Bordeaux moo nekk troisième tigre de Fass waaye ñi amoon yaakaar que roi des arènes moom moo ko yóbbu Fass waaye dafa mel ni moom la mel li ñu naan ne xalam demoon na bay neex. yaakaar daal tas na. yaakaar tas na. yaakaar tas na moo taxit mu ngi wax ne daal instant bi troisième année balance yoo xamante daf koy tegale moo ngi koy yor moom Gris moo tax journal bi jàpp nag troisième année balance moo koy yor bu année balance aatee moom Lamine. Euh, dina dina ci côté de. dina métti ci côté moo tax journal bi tamit mu ngi ñuy ay leeral di ñu wax ni 5 ans moo ko des ci mu dem retraite ndax booy xool Gris Bordeaux mi ngi judd 1980

waaw Gris Bordeaux seul au monde loolu la wax rek waaye en tout cas li leer ba mooy que xëy na gis ne maanaam depuis lors moom Gris gisuñu gisuñu mu ànd ak nit comme ni mu daan def mel ni problème bi mu am ak Gaston wéetoon wéetoon si daal wéetoon na ci moo tax journal bi sax dañu wax ne Tapha Gueye dafa neutre ci diggante Gris ak ki nga moom mooy Gaston Mbengue ci différent bi am seen diggante waaw su fekkee ne Lamine Gris bi mu jël avance boppam jël avance boppam moo doxal boppam lépp tey bu problème amee tamit ne dañu naan ne yaa ko somb woon moo tax xam le que moom Moustapha Gueye dafa mm-hmm. ni tamit moo di zoo technique dafa def benn geste wala boog dafa nar def benn geste mooy jàppale ki nga xamante ni moom moo di Mbaye Gueye ak Balla Gaye 1 ci seen feebar yi nga xamante ni moom moo leen dal instant bi boo xool bu ku ci nekk ba nga tëddee yàgg na ba journal bi ñu wan wax ñi sax Mbaye Gueye instant bi mi ngi ci benn clinique waaye nag zootechnique moom pare na pour jàppale leen ñoom ñaar ñooñu. waaw Lamine zootechnique la journal bi di xam leen ne pare na pour jàppale leen ni ko ñi ay nit di defee rek parce que gis nañ récemment ay vidéo waa GIA jàppale ki nga xamante ni Lamine moom moo di Mbaye Gueye ak ñeneen ñi koy def te siwuñu en tout cas daal li leer ba leer daal mooy ko ne muy Mbaye Gueye muy Balla Gueye ba si Mouhamed Père Mouhamed Ali ak yeneen champion ancien champion yoo xamante xoolaat leen jàppale leen Lamine ngir ñu mën a jot seen wér yaram waaw yaakaar naa ne kon geste boobu Joe Technique def geste kon nañ nañ nañ na ci ñoom sax na ba pare instant bi. waaw dem comme dem na ci na fexe matérialiser ko. su boobaa en tout cas daal bu ko na la daal. loolu am na solo Boucar Ndour ñu ñëw ñu des ba léegi ci journal bi rek combat bi taxaw démb Jackson Junior ak ki nga xamante moom mooy Naaru Segas Noora Sogas duel explosif nag la ko journal bi tuddee Montparnasse. waaw duel explosif la mel Montparnasse démb yaa nga fa woon maa nga fa woon Naaru Sogas nekk champion daanaan tey di jël ki nga xamante tey moo di Jackson waaye Jackson tamit dafa bëri prouvé la mel ba yegg si fi noonu ñoom ñaar ñu war a bëri jëy production taxawal ko loolu tamit yaakaar naa ne. combat derby bu bu neex neex la ñuy ñuy ak bilan bi nga xamante géejewaay benn victoire trois défaites ci saison bi nga xamante moom la génn. waaw Lamine ay m fa lañ nekk ak Rambo ak ñeneen ak ñeneen mu nekk nag bilan boo xamante moom Lamine baaxul santul benn victoire ak trois défaites loolu moom li leer ba mooy ko ne ne écrit bi yokku cere doolu ñeex Lamine. bilan bu sant Guèye daa mel ni de. waaw bilan bu xaw ma Guèye sant xaw ma Seck daal waaye daal li leer ba daal mooy ko ne daal nañ fexe moom la ñuy def kii war a wuutu Alioune Sarr nag dafa mel ni gars yi nag teg nañ seen ay conditions yi nga xamante moom lañ bëggee kii moom lañ bëgg kii ñëw jiitee leen ko waaw moom lañ bëgg kii ñëw jiitee leen ko depuis loolu Lamine monsieur le ministre Matar Ba dans plus grande discrétion mu ngi fi di wuutal remplaçant ki nga xamante tey moo di Alioune Sarr am na ñu ciblé am na ñu jot waxtaanal waaye dafa mel ni nag Lamine déggoo am na amul parce que am na ñu ñu ciblé ñu bëgg waaye dafa mel bëgg tànn équipe boppam waaye dafa mel ni ministre bi tamit dafa daf see daf koo bëgg a ñambaasal ñoo xamante ni tey am na yaakaar wala rafet nañ jortu ne bu ñu leen si dugalee rek maanaam liggéey bi day gën a yemb waaw loolu am na solo nañ ko xool daal nañ ko waxtaane ak lu mën a xew daal balaa ñu ciy def dara rek nañ ko waxtaane ndax olof Njaay nee réeroo amul ñàkk waxtaan moo am Agogo produit de l'écurie sàkku xam-xam j'ai accusé du retard pour waaw pour avoir été naïf Lamine parce que mbër moom des fois nga tollu guddi yoo xamante ni maanaam tey doo boo amul staff wala boo amul tey un peu de recul rek mën mën na laa yàqal lu bëri parce que da ngay toll foo xamante ni Lamine si nga waroon a mën a profiter pour relancer sa bopp relancer sa carrière Lamine jëm ci kanam Agogo nag mu ci xamle yu bëri bëri bëri ci biir journal bi que ne tey waroon a mën a jël poids waroon a mën a dépasser fii nii na ne am na combat yu mu bëri yoo xamante ni ñàkkam li ko tax mu ñàkk ko maanaam li ma ko waxoon sànq rek day diis waxuñ nag nga jël graisse wala jël masse ba doo mën dara waaye mbër am na fooy toll Lamine foo nga am doole am kattan parce que di dajeek mbër mu mën la sax dàq mu dàq la bëri waaye poids bi nga yor mooy tax Lamine du mën ci yow lu bëri. ndax yaakaar naa ne diis dana ci baax mën nga am doole te boo diisul sax boo tasee ku la gën a diis mu daan la te booy xool moom nag fin technicien la ku mbër bu mën a bëri la. waaw mbër bu mën a bëri la doole bee des rek Lamine war a diis rek ni ma ko waxee 2 giga foog naa ne moom tamit ñoo bokk benn écrit mbër daal Lamine foog nga diis waaw foog nañ diis nañ diis écrit sax xam-xam waaw xam nga Père Birahim nag moo fa nekk maanaam nga ay maas ndaw lañ ay Mori Cargo ñu fa ñi ma fa gis ñëpp ay maas ndaw lañ xëy na ay brise de mer sax ñoo si xaw a mais daal li leer ba leer mooy que nañ fexe Lamine mbër ñu naan loo xamante ni jël masse bu naturel soit nga jël protéine wala ngay reposé wu normal ngir mën a am doole bi war ci yow Lamine loolu am na solo Ber Birahim borom sàkku xam-xam yaakaar naa ni dégg na loolu ndax moom dañuy bàyyi xel bu baax ñu ngi koy nuyu suñu père di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak ñu ngi nuyu ñuy suivre tv point com yëpp fu waaye mën a nekk si àdduna bu ko ñu ngi lay nuyu bu baax di leen ziare waaye di dem ku bëgg am doole demal foofu ndax sama protéine bi yaa ma ko joxul moo tax instant bi moo ñàkk form dematuma waaye bis boo ma joxee protéine bi rek ma demaat foofu ndax weer rek boo ko fa entraîné ñoom doore ak ñi nga xamante ne Cheikh Diouf Thomas dañ la teg ay conditions yu baax a baax a baax ñu ngi nuy waa group Ligue TV yëpp groupe xew-xewu làmb ji Abdou bu xarañ loo ñu ngi ko nuyu di nuyu Mame Balla di nuyu Tuuti Yaay Sarr Omzo bu Garga maa ngi lay bëggee di nuyu Serigne Diour sa adversaire seen combat bi nag war ngeen ko mën a bëree ndax yaakaar naa ne yéen ñaar ñëpp yéen ngi ci entraînement yi man nag damaa xamul kan moo war a ëpp doole ndax ñoom ñaar yëpp ay koccal lañ. Euh, en tout cas daal Serigne Ndour moom en tout cas champion la ndaanaan la mu ngi entre na entraîné Lamine mais maa ngi nuyu ñëpp di bëgg ñëpp di nuyu Laay bu def Sandaga Lam Star Baye Gueye maa ngi koy nuyu Cheikh Ndaw sama boro Thierno Thiaw waaw le nouveau marié day waaj a takk soxna ak doom ndeyam Aliou Badou soxna koy takkagul marié gul waaw mais mu ngi waaj comme am na bés kay waaw yàlla na bés bi yegg yàlla na bi yegg si rek Lamine di nuyu nag ki nga xamante ne moo di Isam Gosael ak sama frère Kori Ndour patron Isam Gosael nag nee nañ nag lépp luy xeetu mouchoir wala couche à jeter. da koy jaay kóoris. kon Isam Ndoreer ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. di nuyu Isa. Isam Gosael. Isam Gosael ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare di nuyu Ndoreer di nuyu xaritam Alamda di nuyu Ramdan Faxman Boy Bawal Boy nag gëj naa koo gis gëj naa koo dégg di nuyu tamit ki nga xamante ni moom mooy Pape Mourou suñu interview live bi boobu ba léegi maa ngi ko koy wax waaye Pape Mourou moom dafa busy ñoom li ñuy wax busy dafa mel ni dafa busy ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare di nuyu ñu commentaire ñëpp Mor Diakhaté ñu ngi koy nuyu di nuyu Cheikh Bass Kër Massar doomu day Pape Demba ak Ama Malika ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu Dame Mbengue Birane Mbengue naa Aline borom jaasi ji def United waaw borom Grand Yoff di nuyu ana mbeelu ngic lay di seen léegi seen a mbeelu ngic moo ngi fi barki démb jaar naa fa gisuma ko xam moom moom du toog waaw mais maa ngi koy nuyu di ko jaar di nuyu Modou Sène ak ak ak ak mbërëm bi rajaxe boog moom foog naa bokk na si ñu war a décorer ak lu lamb Sénégal di nuyu nag maam Waly seen fàq man Lamine Père Max neen dafa bëgg a jiite CNG bi Père Max Mbergane waaw permax permax loolu non loolu parenthèse dañ koy waxtaanee fële ba pare parce que permax moom sama père la sama waay la jaar na ci làmb am na xam-xam waaye su ma ko doon jox CNG bi da koy sonal rek. nee na tarkindaay dañ koy wax jëlal jëlal jëlal CNG mu leen yàlla tere da ngeen a réew te xale bu bu bu bàyyam yore ay xaj. danaan kuti bu ma neex laay tànn lu neex neex la ñuy def kon. en tout cas daal li leer boole daal moo ko def père père Max moom CNG bi dalay sonal rek di ko ñaanal jàmm moom tamit suñu père la ñoo ngi koy nuyu Lamine di ko ziar di nuyu Matar kante Yoro Kanté sama boro di nuy nag Ibrahima Wade Lamine Daouda Ngom dëkk Brésil. Ali borom Turquie sama waa ji borom Sokone kooku moom kenn la ci man. maa ngi koy waaw mu ngi fi de moom moom mu ngi Grand Yoff rek. Mamadou Gueye Arona Camara gaa yëpp Benzema dem Tigre Noir. ma Ansu Diop Fata gaa yëpp Lamine ngi commentaire ñëpp ñoo leen di bëggee di leen nuyu di leen ziar. di jox ñëpp rendez-vous suba incha allahu rabbi